comment gis nga mu ree ree bu bëri gis nga ko ree reetaan bëri de boobu li mu wax dafa séeréer ci moom dafa séeréer du ree ree bu bëri parce que pare na pour quitter Macky pare na pour opposer parce que li mu doon làmb dara baaxu ci sama dernier gànnaay mooy xeexoon négocier naag waa ji nangu ma jox mandat parce que newoon na ma day jox dem naa ci Sonko sottiwul kon bàyyil ma xeex c'est très simple maanaam li mu doon wut bu ko amoon doo ko dégg mu génnee booy ci ci ci gouvernement bi mais pourquoi encore sax pourquoi rek yow yow léegi opposant nga faw sa nit ñi génn gouvernement c'est-à-dire kon ana dialogue bi lu tax ñuy lu tax kaay la ñuy dialogue Wade ñëw fi ci suu euh, Diouf mu ñëw nekk ci nguuram période di opposé wu def na ko fi Abdoulaye def na ko fi Abdoulaye Wade dugg na ci nguuru juuf di opposé wu Diouf bàyyi ko fa mais pour que waa ji bokkatul man xalaat dama koy dàq rek loolu mais loolu loolu mooy lan sa encore ci démocratie loolu il faut ñu xoolaat quoi pour que gars yi jàpp daal même bu ñu génneewul suñu bopp daa ñuy dàqi ci laa jàpp xanaa moo tax ñu rendre seen démission euh, avant avant ñu leen di dàq mais nit ki pourquoi ne bokkuma xalaat du ma bokk ak moo ñu diggee réew mi maa ngi doog a xam lu tax gars yi bu ñu opposé lànk ni duñ nangul nguur gi dara mais pourquoi nangu parce que léeg-léeg ne nañ dialogue kon bu ñu doon dialogue léegi ba ñun am ñu nangu duggee ci nguur gi kon mais est-ce que kon dañuy ah bon kon maa ngi doog a xam ne gars yi amuñu principe way xam nga lu tax suñu duggee ci nguur lépp lu ñu gëmoon dañ koy bàyyi ne teg noppi. d'accord ah oui loolu la bu ñu génnee uh-huh. demaat ca seen la ñu demoon nag ñun nag ñoom loolu lu ñu dul bàyyi muy romb dialogue uh-huh. boobu président di woote dinañu ci taxaw sax waaye eh, ñoom ñaar seen ànd bi bu fi yemee kan mooy le grand perdon su fekkente ne jàngo échiquier politique bi ni mu bindoo jamono ji eh, contexte bi nekk ci ab mën nañu suñ ko mën a waxee année année année électorale ñoom ñaar seen ànd bu fi dakkee politiquement kan nga jàpp ne mooy ci le grand perdant. it Idy dafa yàgg perdre d'abord. soo naan grand perdant mel ni Idi Idi lan la mënoon am ci ànd ak Macky da nga ko naan dafa perdre wala perdre loolu loolu laay posé que Idi lan la waroon gagné te moom moo ñu yàgg décrire yi man seen ne comprends pas nit ki nit ñi daa muus ni muy décrire Macky ba pare muy sànjaafu Macky di collaborer rek moom Idi moo tax mu nuus mooy décrire Macky ba nga xam ne da nga koy ragal mooy sóoruwaat Macky di yaakaar ci moom dara kon Idi. lan ngay laaj ndax dina per Idi dafa maanaam est-ce que jàppoon nga boog Babacar ñi ñu seetaan ne Idi mën na gagné dara ci Macky loolu laay posé question parce que koo xam ne kii dalaa fekk ci wetu président nga ne moo la xeex ba nga jóge fa yàqal la si lépp te yaa waroon toog palaasam mu ñëw àndaat ak yow xam nga yaa ko nax wala moo la nax bi mu naan toogal fii rek naa la dëfal comme maa la yàqaloo ci président yow damay def deux rek bàyyi la nga dem quoi ñu fàtte histoire bi. te Idy 2019 euh, programme amul ci waxu moom lañ ko dénk. voilà bi mu duggee ci gouvernement bi. voilà kon moom amul pour man pour man dafa doon wala à xam nga Idy dafay dafay jouer dafay jouer moom day carte day lido day lido malheureusement point bu mu yëkkati balaa génn gaa yi téye malheureusement te nag xam nga su nekkee ne li ngay def. àndoo ceeg benn sérénité àndoo ceeg benn gëm yàlla wala wóor lu dul ay pexe ngay lal idi xool ko kañ nga ko gëj dégg ci nguur kon fa idi ci lan lay liggéey idi lan laaj naa xaw ma ngeen baama de xaw ma métier idi lan lay liggéey depuis mu jóge xanaa est-ce que defuñu ñu mm-hmm. ministre bu ñu yebal ñu ne ko non booy dañuy seddoo salaire ci mm-hmm. xanaa du loolu kay damay laaj de soo déggee seen wax ñoom ñaar Idrissa Seck dafa wax ne waxtaan na ak président xamal ko ne dafa bëgg a seeti kii di Ousmane Sonko bi na ko na dem président nag nee na moom yebalu ko ngir benn médiation euh, waaye kii di Idriss Seck aussi président nee na dafa bokk ci coalition muy benn bokk yaakaar mu dem jëlub décision boppam dem def li nga xamante ni mooy déclarer candidature mu ngi élection présidentielle yi ñu dëgmal conséquence politique yi na ko ci tiré muy leen def na ko te informé wu li nga xam ne moo di conférence des leaders donc kon la ci war a rek logique bi mooy mu daal di fay jugee. mais Idriss Seck booy dégg ni mu waxee moom mel na ni moom moo def démission moo jël décision dem beneen parti mais beneen côté aussi soo déggee mel na ni Idriss dafa poser acte ñoom tamit ñu daal di jël décision maanaam tirer toutes les conséquences politiques exécuter ko ci seen i kii. waaw no loolu du tey xamoon na ko sax moo tax ma ne la ñoom dañoo xam ne buy leen bàyyi. ñu daanaka ni ko Pape Alé wax waxee kii di la vérité euh, finalement. voilà moo lay wan ne xam nga ay mag yu toog di lal pexe ba mu toj ñaari sàcc fu ñu xuloo li ñu sàcc day te kenn du nangu jël responsabilité bi. tam nga ne yaa waxoon ma tijji bunt bi yaaxoon nañu na ñu xaar ba guddi et cetera kon ñoom ñaar la lu tax mu wax ne Macky nee na ko wala boog nee na Macky mu ngay dem n'est-ce pas wax ji nee na ko mu ngay dem mais Macky waxul ne maa ko yónni kon bu nekk yónni ma la dama naan boo demee bu fa wax samay mbir doxal ko sa bopp ba bu ëllëgee ku ma laaj ma naan ka ñëw na ci man mu ne day dem ci Sonko ma ne ko demal doxal ko sa bopp pour mu leer mais bu xesee ñëw ne maa ngi dem. nga d'accord ci demam rek xam nga ne demam yaa ngi doon séentu dara tamit xam nañu sonkoo fi mu tollu gars yi léegi Idi mooy jóg di seeti Sonko nga xam ne caaf xam na Idi jóg di seeti Sonko caaf xam na. seeni personne ah oui xam nga lu tax 2019 bi leen leeree ne élection yi saa waay gagné ko mm-hmm. la ñu bëggoon mu nax gaa yi ba contourner dem ci Macky Sall bàyyi fi gars yi moo naa ci Sonko non yàlla du yàlla du nit. ay pexe sottiwul billaay yàlla du nit. moo tax ma ne la à la fin ñoom ñoom yi neen na rek ma ne la sàcc bu ñu xuloo si lu ñu sàcc feeñ loolu du ñu soxal ay mu tàggu naa ko tàggu ko moo ko ne demal demul ak yëpp xamalaan la ñoom la ñuy joué la sénégalais yi xam ba fi ñu nekk nii ku nekk nga ni teg di xool fan lañ jëm moo tax dara mënatuñu bett ca la ñuy def koo xam ne waru présenté wu te nga xam ko mais looy daw ci Sonko pour wax ak moom yow kay Ali taxawal rek taxawal nga xaar soo wóolu sa bopp. benn waaye nee na boo ma tur parrainage am sax du mat. muy moom Idrissa Idi Idi bu ma tur parrainage am du mat. mooy chef de l' justement nga ñëw ne ay mënul am ay parrainage ñu jëm ci ay élection en tout cas dama romb benn waaye waxtaan mu ne bu ma tur parrainage am du mat mais naa ko andi fii ma yeggal leen ko Idi bu ma tur du mat. mais Idi Idi nee na mooy mooy le chef de l' opposition parce que moom élection présidentielle yooyu ñu mujjee moo jëloon deuxième même si bu dee par la suite dugg na ci gouvernement bi léegi génnaan na. loolu la ñu tuddee mer nga dégg waa ji naan dafa bëggoon lii ñu xañ ko ko rek mu daal di créer partem loolu mooy mer ngémb Idi dafa tàpp porte yépp xëy di revendiquer loo xam ne nangoo na ko bàyyi ba muy dem ci Macky Sall di lijjante pour mu jox ko troisième mandat ana ana chef opposition loolu da koy théorie rek mais xam na li ci terrain bi ré ré non non réalité yi nekk ci terrain bi xam ne kan mooy chef opposition te bëgg koo sax nga opposition mooy ko xam ne yow dalaa tiital ba nga koy seeti yow Ousmane seet si la de yow yaay seen opposition nga jaaxle bi di ko seeti xoolaate sa bopp waaye te da nga ñëw pour mu dimbali la ci kii taxaw sa kanam ne nga yaay deuxième ci moom yaay opposition te mënoo ko opposé wu yow li laa wax ne mënoo ko opposé wu dangaa génn rek nga ne damay dàq kon kon mënoo opposé wu faaw nga wuti doole. waxtaanu Idrissa Seck Ousmane Sonko li ci spéculé wu liñ ci liñ ciy jàll ci ay xibaar bari na Idrissa Seck soo ko déggee léeg-léeg ni muy waxee am na ñoo xam ne sax ne nañ ni muy waxee nii rek ça veut dire que ne la mu fa jëlee neexul est-ce que yaa ngi xaar un jour Ousmane Sonko génn ci tekk tekkaaralam bi la euh, daal di rétablir la vérité maanaam ñëwaat ci li nga xam ne moo am ci daje diggante bi Idrissa Seck bii nag li may li may bëgg Sonko wax yépp su ma sañoon du ci wax te niroo na ma koo xam ne du ci wax xanaa ñu génn waxal ko lu mu waxul xam nga dégguñu ba tey idi naa ñu Sonko nee na dégguma ko bokk wala am na ci conférence presse bi. ah moom wax na fi ne ba mu defoon Thiès nee na dem bi mu dem ci kër Ousmane Sonko boobu bokk na ci lu tax ba seen manifestation bi ñu waajoon le mais dégguma na am na mbir yoo xam ne amaana teewaayam boobu. waaw waaw nangu naa mais ci baxam dégguma ne Sonko nee na ma nee na ma nee na ma tontuwante boobu kaa dégguma ko. d'accord Sonko ci la mënoon génn pour ne ko eh wala nag su ma noppee da ngay noppi. xam maa ngi wax keroog ne dama am ku ma gis si ginnaaw mu ngi mel Doudou damaa jum ci côté bële dama ma sori du Doudou Wade da quoi moo tax mu maa ngi wax ci kërim laa ko doon xalaat après laa mm-hmm. xoola image yi bokkee ngeen baal ma mm-hmm. mais wax la ne eh, bu nekkee ne Sonko dina ci génn day fekk ñu bëgg ko waxal lu mu waxul mais jàpp ma ne dina ci wax parce que amul sens ñoom do tàpp nañu port yi mbëkk nañu ñoo nañu toogaat idi wane na boppam kon Ousmane lan lay waxaatee da ngay yàq sa wax nel tekk rek mm-hmm. moo duggoon sa kër yëgluwul moo génn di wax tàggoowul nel tekk rek yenn silence yi réponse la. yenn silence yi réponse la alors. oustaz ci ci ci korite gi nag yaa ngi koy wax léegi imaam imaam nee na jullee jumaa ñam jumaa ji daam bu jee seer la moom ku fi jullee di nga indiwaale eh, ñaar téeméer. waaw malheureusement malheureusement damay wax ne eh, dama doon tooñ sa à la fin. Mhm. dafa dafa dafa dafa xaw a yàq suñu lébu gi tuuti balaa may dugal ma tàkki ne ko tuuti imaam lébu gi daf kaa xaw yàq ful la lébu sa yi. fulla gi ñu amoon. Hmm. moo tax maa ngi nuyu waa mbaa waa waa baan ñooy sama mbokku papa yi. d'accord fulla gi lébu amoon. Hmm. paa bi sax daf koo xaw a wàccee. histoire Grande Mosquée nag mën naa ci wax lu bëri fii. Hmm. gis nga Cheikh Tahir Doucouré. mu ngi dund ba léegi. ànd naag Senghor lu ne la may wax ci Senghor te Senghor a ko wuloon ba teg ko ci wetam yooyu secret yu bëri duma ko wax fii. Senghor da euh, dañu ma am na góor gu ma sa wax ne. génération PALS Senghor mu ngi doon ragal quatre cheikh yi cheikh Ahmed Tidiane Sy bu sëñ Babacar cheikhu Touré cheikh Gaynde ma ak cheikh Anta Diop quatre cheikh yi la Senghor defoon nit <laughs> pexem yëpp gars yi dañ doon bàyyee xel mais pour wax la ne su ma ñëwee ci euh, loolu nga wax ci imam bi euh, waxuma lébu gi bàyyi naa ko ne leen grande mosquée xam nga ne maam Abdou baax moo fa njëkk jiite jiitee ñu bëri xamuñu ko te dabaax ndeysaan dañ ko jëloon pour mu ñëw di fi jiite jiite nekk per ku permanant xëy na daan jóge jóge te ñëw Cheikh Tahir Doucouré bokk na ci li mu wax mu ne ma maa demande famille bi wala mu wax ak dabaax ne ko demal nga toog sa jumaa yu pàppa bu nekkoon bi dañ ko am mbaar wala ñu sàkkal ko sax moo gën nga ñëw ci jumaa ji parce que xam na li nekk sa mbokk lébu yi ci xëccoo <laughs> sama mbokk léegi yi mm. xam na nañu nekk ci xëccoo ñoom xam naa leen du ñëpp nag am ñoo xam ne xam nañu lan moo xew mm-hmm. dama la ne yàlla daf ñoo nattoo ñun lébu yi xëccoo suuf xëccoo jàkk ne loolu du problème da baax am na ñu comprendre woon sax ah, Tiwaawan comprendre wu ñoo naa bi pas taay du ko joxe loolu ñu bëri comprendre ñu mais maam da baax dafa dem màkk jamono jooju nee na ca Medinatu Munawara mu gént Seex Taayir Dukure mu akolaat ko bi ñu wàccee aéroport Sénégal fii seetaan du ko bokk na ci ko doon ah, teeru góor gi dabaa dafa ne tër rek ne ko fii daal gént naa ko Medinatu Munawara ñëpp tey seen gémmiñ ñi pour wax la li leen boole. paa boobu moo doon wax Senghor na bés boo bés boo tàggalee kii projet fii Cheikh Ahmed Tidiane danaa la bàyyi Senghor dafa joteeg Cheikh Tidiane ba tëj ko. Mhm. <laughs> Senghor tëj na fi Cheikh Tidiane de. Mhm. ñu bëgg ko tijji mu wax leen xat mu wax leen xat mais góor gi dafa ne boo ko boo ko defalee projet danaa la bàyyi parce que xam na li ko boole Senghor. di ko booleeg tijanisme moom parce que pa boobu càllale maamam yi ci tijaan ci ama tijaan yi la jógee euh, c'est euh, c'est xamala kon xam yooyu histoire du xaju fii mais pour grande mosquée histoire am waroon nañu toll feneen fu dul fii nga xam ne wàccee nañ ko maanaam tey imaam yi Maodo Sylla xoolal dignité bi mu amoon am ama Lamine Diène amoon na doom boo xam ne ñoom bokkoon bu doon ñëw ci ñu jàng yaakaar dafa génn extérieur Pape Diène xamatuma sax fan la nekk n'est-ce pas imaam bi bi léegi erreur yi mu def daa bëri xaalis bi nag gaa yi comprendre dama ragal da ko doon laajal jumaa Tiwaawoon ci li ma comprendre maa ngi dégg mu ne damay yóbbu même bu waa Tiwaawoon joxe sama nekku ci mais kenn du laajale Tiwaawan noonu quand même. moom sax ci ci biir waxam dafa wax ne ñiy laaj jox leen ma jox leen ma bu leen leen jox ne kuy laaj boo ko joxee. ci ah yaa sa aussi ba pare mu ne suma jumaa ji ku jox xam nga ah. dina àgg. pourquoi muy jaar ci voie boobu waa Tiwaawan ko bëggee noonu dafa bëri erreur daal laaj bi sax si pour moom la gën naa garaaw si pour Tiwaawan la bu ne bu ci jàddalee dara poosam garaaw na bu ko yóbbu Tiwaawan Tiwaawan waruñu ko laajale noonu parce que mosquée Tiwaawan tumuraanke waaw tu tumuraanke ni ñu ko laajee kon doo toog foofu nga wax benn wax ba pare nga waxaat lu xaw a méngoowul ak loolu nii dañuy jël sa wax jooju jàpp ni la nga am contradictoire ci sa wax parce que lan la njëkk a wax dafa ne ñaari mbir la wax def ci erreur tamit kuy jàng da ngay dem ci charia nga wax la charia wax mu ne xale yi ku ci dee da ngay dem safara mhm. ñi toog ci kanamam balaa ñoo fale am na xale yi de kon ne leen yéen ñii am na xale yi dee yéen yéen leen yóbbu safara yéen nguur googu nekk ci kanamam. balaa ñoo fale dafa am xale yi dee ci cause bii xale yi xeex tey kon waroon a gis na ne eh, am na xale yi dee yéen a tax ñu dem safara préparé leen mu tëb ñooñu ñëpp di wax ñi mu jàkkaarlool ne xale yi di xeex ku ci dee dafa dem safara xanaa jàngul xadis yonent ba ba naan ku defendre sa honneur ba nga décédé martyr nga. ku défendre sa suuf ba nga décédé martyr nga ku défendre sa alal ba nga décédé martyr nga. xanaa jàngul xalis boobu xale yi lu ñu défendre seen honneur seen alal te dem àjjana laa di wax. mooy mooy bracelet yi bracelet yi takk leen ba mu neex leen. akamu wuuteeg lam bu ñu tere góor non non man dama gisagul daa matewul su ma su ma ko jotoon takk ko. dégg naa commande ba dafa jeex mooy pour wax la ne. benn ngoog uh-huh. beneen bi. Uh-huh. juum na demu ci texte yi di wax waxu boppam ñaare ba nee na. kuy laaj kenn waru ko jox wala boo ko joxee du def li nga ko laaj moo tax xëy na bi mu laajee xaalis gars yi ne ko doo ci def li nga laaj xëy na foofu la quoi waaye foofu la moo tombé rek ñu situation bu nga xam ne suñuy woy politique wala ñenn ñu demee ni imam boobee mhm. askan wi daf leen xaw jiito mhm. su fekkee jàpp nañ ne xale yi euh, dañoo nekk ay ndaw yi nga xamante ni amaana xamuñu lu ñuy def dañu topp li li li li nit ñi di wax ngeen baal ma riir riir mi yóbbandoo rek est-ce que du xale yi dañ leen dépassé ci ci côté boobu maanaam xale yi dañoo dem ba comprendre enjeu yi comprendre situation moo tax ñuy xeex ngir seen ëllëg di xeex ngir seen ëllëgu doom ñoom ñu jàpp ne xale yi ñu ñuy manipuler leen rek jàppe leen ay ay tout temps. waaw li ma lay wax dal ma ko la dama la koy confirmer dinaa ñëwaat ci ci kanam ci li mu wax. ci wàllu waaw waaw ci li mu wax ne kenn du dinaa ci ñëw mais dama profité tontu sa tontu bi ma ñëw ñëw ci ne kenn du laaj. Mm. man yàgg naa wax fii ne sëriñ si bu yeboo leen ci politique waxoon naa ko fi. tout à imaam yi naka noonu woy juri jur doom yi sax booy déglootuñu leen sa pap bi la jur yow booy bu taxaw keroog ne Sonko moo ko gën boo ma laa non parce que nee na àndul ak Sonko rek quoi bañul papam bañ ñi mais li mu àndul ak Sonko rek mm-hmm. Mm-hmm. foofu la jëlee Sonko mu ne waxul gënu nii son papam daa bon de mm-hmm. ñàkk ànd ak Sonko bi la ne non man Sonko moo ma gënal sama pap mais xoolal kooku waxuma laa imaam loolu sax ci preuve ak sama xel dafa am ci kum dem laataa ñuy commencé def émission bi la daanaka bokk na si ñi ma njëkk dégg sax ñu may wax sa jëmm ji ku la sokk mm-hmm. eh, mu nekk foofu si Kër Massar ñu koy wax eh, Mohamed Sall mm-hmm. eh, moom ci élection législative yi dafa tombé taw nag mm-hmm. ñoo bokk benn dëkk ba yaay ji bëgg a woote ji at di ko abbu parapluie bi mu ne ko comme doo wooteel Sonko du mu la ko jox yaay ji xuus tax bi woote gis nga fu mu leen toll kon bu baax borom voilà kon wax la ne imam yi c'est-à-dire am na ñoo xam ne sax dépassé leen nguur leen dugg am na ñoo xam ne booy dañ leen dépassé xamuñu événement yi moo leen dépassé am